jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nu ñu leen koy defalee mbokk yi ubbi nañ salle de musculation yi waral ñu dem seeti ndaanaan yi nga xamante ni gëj nañ leen a gis ci làmb tey ñu ñëw fii ci parcelle Assainies seet si fi xale boo xamante ni mu ngi nekk écurie Dóor Dóoraat ñu gën ko xam ci Black tey balaag la wasaare làmb seet si ngir ñu waxtaan ak moom ñu fekk ci saal bi gis ngeen macha allah liggéey bi nga xamante ne ci la nekk muy mel ni am na lu muy séentu wala am na lu muy xaar balaag maa ngi lay nuyu. Baye Djili maa lay bëggee di la siyaare xam nga di nuyu ñëpp di nuyu borom saal bi sama mag sama grand frère Lamine Gueye di nuyu kër su Manga xam nga di nuyu sama benn kër su Souleymane xam nga man parce que dafa ñu siy jàpp dafa bari quoi di nuyu booy bi sama ginnaaw bébé balaag ma la boppam xam nga di nuyu sama doomu nday maas Gambien di nuyu sama xarit yëpp képp ku xaritu balaak sama mafia bi yëpp maa leen nuyu di leen bëggee di nuyu waa King of Nice yee di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di sant timit sama ñaari waajur falaam waroon a njëkkee xama di sant sama waa dëkk waa Saalum waa Ngeen Musaga yi parce que dañ may jàppale bu baax a baax a baax a baax nam ma dara ngir ñoom yee balaak dañ laa gëj a gis fan nga nekk non maa ngi fi maa maa ngi si entraînement yi xama maa ngi si entraînement yi ne sama ruq di liggéey rek tamit boole si tamit gëm yàlla ko quoi ren am na sorti bu ma def quoi yee. Mhm. ñaata combat nga bëri arène. quatre combat laa bëree. Hmm, kan ak kan nga bëreel. man albarka kayra laa bëreel. boobu moom jël amul fa ñëw ñu nekkoon si làmb yëpp gis ngeen ko Jackson moo ma daan. Hmm. ma daan saa Kajoor 2 daan lam tooro bu faas. yee. Mhm. Euh, sa diggante albarka kayra dafa mel ni yaa ngi bañ mais keroog ba mu fiy jógee moom moo am ndam. moom la arbitre bi jox ndam keroog. loolu man ba keroog mooy dugg sama bàmmeel loolu du ko nangu quoi. duma ko mos a nangu pax lu tax ma ko ma la ko parce que da nga ma laaj ku la ko kooku daanul ma su ma daanoon dama naan daf ma daan mais làmb dañ ne bëree dóor est ñu wax tey man a def nañ bàyyi ñu bëree ma dóor man may daw di jëli tànk bi at bi suble man ba léegi comprendre ma. est-ce ni da nga kaawoo mënatoo woon mais ku kaaw tamit bàyyi jëli dina daw di jàpp tànku mbër mais su ma kaawoon du tal leen dinaa tal leen lu jëli tànk mos naa kaaw xam naa kaaw waaw. mais combat bi keroog Balak ñu ci bari jàppoon nañ ni euh, yaa nekkoon favori ci diggante ak albarka. mais mais mais mais mais bëri bi nga bëree. bëri bi nga bëri ñu ci bari nee nañ non Balak dafa yëg boppam wala noo dafa cuune ci bëri bi te ku xam Balak xam champion la quoi seetaan naa say combat yu neex macha allah. oui non cuune moom sa waay kanaa ku ma xamul quoi mais ku ma xam moom du wax loolu quoi. bàyyi jili dama bëgg nga war parcelle nga laajte kuy Balak. man damaa def lu ne si làmb kii mën na ma seede dama bëree làmb ba dugg aren sama ginnaaw mosul laal suuf ba nii may waxee yow mbappat sama ginnaaw mosul laal suuf booy yu may àndal nii mën nañ ma seede wala nga wër parcelle nga laaj nga ne ku ba ku daan balaak mbapat doo ko gis fii dama ko téye woon nii mais làmb xama moo tëra di quoi toog tamit année blanche yi di année blanche di année blanche comprendre nga toog def année blanche yi yoo xamante ni mooy loolu am di préparer combat am blessure comprendre nga man Jackson ba may daan sama faar moo damm laajal booy yi ba suuru combat bi Garga Mbossé dafa ñëw na ma dañuy dañuy aj combat bi ma ko du ma ko aj parce que sama combat euh, nu mu tëratee xeeru ngor dama defoon accident kon boobu bii tamit bu ñëwaatee nga nar ko fommaan noonu xam nga day am lu muy ñuru da ngay yeb say supporter moo tax ma ka ma fule dem bëree ji ce que du li nga daanu moo tax nga non sama combat maak Jackson ah mais maak Jackson ay dama am blessure dama dama à chaque fois mbër bu daanoo rek loolu lay wax dama amoon blessure blessure laa bëree ci combat bi est-ce que loolu bokk na ci acte boo xamante acte professionnel la. boo wax mais dama la bëgg expliquer pour nga xam Jackson jàpp na ma daan na ma jël bu rëy mais suur boobu noonu Jackson benn wet laa bëree ak moom. wallaahi azim ku dee ak sa bàmmeel bu fekkee man suur boobu bëriwuma ak blessure képp ku ma bëriwaat si làmb yàlla nga am si man tam billaahi wallaahi taalaahi. blessure boobu lan moo la ko teg. loolu métti quatre jours avant combat ñu dem géej di entraîner comprendre nga su xam lu war a ñëw day ñëw suur boobu noonu xam nga suur boobu noonu lu war a am xam nga day am. suur boobu noonu camara nañi boo mu ngi fekk suñu course su camara mu ne ma non tey doo doo contact mu ne ko non bàyyil ma contact ndaw boo nekkee ndaw yëg sa bopp ba surtout nga préparé ba xam ne yow mi pare nga ma ne ko non bàyyi la ma bëree mu kon léegi jorul takk ngemb ñiy bëree noonu xam nga may jàpp yi mooy loolu man boobu xamul danga may laaj ci Baye wala nga laaj ma waa Unité 3 kon mooy. voilà xam naa la bu baax ndax fekk naa la écrit ba booy contact dañ laa baraag du sollu koo wax mu ne la non man moom balaa baax la quoi booy contact boobu dalay gaañ ak dalay jaay doole yu mel. sur boobu xam wax na wax nañ ko ba taay may dégg. suur boobu xam nga lu war a ñëw xam naa loolu dafa waroon ñëw tamit si man ma bëree di bëree di bëree ba mu des benn combat ah, benn combat barki alxuraan Camara na bu bii jeexee leen sa waaye dafa ma takk nii delloo delloowaat sama bi génn billaahi wallaahi ma toog di faju tamit mais instant yi nice. Euh, instant yi nice mais ah, saison bi jàppoon nga jàppal nañ ci sa combat wala promoteur woon na la ci pour bëgg sa combat. waaw bëri naa saison bi man ak Jackson saakajoor Joor 2 ak bi maam am ndam waaw. bu géej waay. kon ñaari ñaari combat nga bëri ci saison. saison bi benn combat daaw nga bëri benn benn combat. Ah, mhm. ren koo mujjee bëre. ren jàkkee Saaka Joor rakku euh, rakku mm. waaw. kan moo tëggoon loolu. Euh, Gibson production. waay ah. yéen a bëri woon grand combat wala spécial. combat kii ay quatrième combat xaw ma sixième combat hmm. ku euh, bëri grand combat Tigo xaritu yaayam. Hmm. Tigo boobu maa ngi woon euh, stade Iba Mar yaakaar naa ca nekkoon Ousin moo demoon waaw Ousin moo demoon foofu. dëgg la su woon ay làmb nga bëre daan kon maanaam mun naa wax ni ci ndam nga jóge waaw si ndam laa jóge way fi mu toll nii buñ la doon proposé ne la Black bëgg nañ sa komba ñan nga jàppale parce que xale yi ne ci làmb moom weex nañ trop am na ñoo xamante ne. xale yu weex yi laa bëgg xale yu weex yi si laa bëgg. albarka kay moom soxlawu ma ko parce que xam naa ne boo doon wax fii ba suba du jël sama avance ñu mun ko tollanti kay ay mbokkam sax duñ koy bàyyi mu koy tëllante. dafa mel ne Albarka Kairé dafa am loo ko jàpp. bu bu bu bëgguma di wax di wax sax si moom quoi mais damaa xam ne kooku man ak moom lu waroon a am la benn trace bu waroon a am si man la rek mais tërëwul maa ngi sama yoonaa ah. waaw mais wolof Ndiaye moo ne ku rey wëliw doo gudd fan de. waaw bëgg gudd fan. waaw <laughs> ah, tamit xoolal rek <laughs> di ba daane ba léegi xoolal rek. xëy na làmb moo demee noonu rek ndam la défaite ak ak ak xëy na moom moo nekk laa soxla. ma ca préra mu ko jàpp du ma ko dumay métti daan ko jële bu rëy arbitre di ko faral di ko sàcc di ko jox ay victoire yooyu noonu man victoire yooyu su ma ko arbitre joxoon ma koy delloo si biir géew bi ma ko Mathia Pereira bu géej waaye man moom laa soxla na ñëw ñu neexal ko. déedéet balaak. Mathia men Mathia gis nga ni def albaar. na ñëw ñu neexal ko. Eh, Mathia Mathia champion la de. na ñëw ñu neexal ko man bëgg naa. dégg Mathia kan nga yaakaar ne Mathia sama morom yi bari nañ fi yow xam nga tey man nen catégorie laa war a bëreel tey du ma ñëw ne jox leen ma saa kees te yegguma fa. mais sama moroom yi bëri nañ si làmb yi boo leen di compte duñ jeexal man tollu ma fu may taamoo parce que yeggu ma fu naan du ma bëreeg diw yeggu ma fu may taamoo naan jox leen ma diw mais instant bi lu ñëw man man lu ñëw ma jël yóbbaale waaw Euh, dafa am loo xamante ni dama ko seetlu yaa ngi door dóoraat ba tey. maa ngi dóor dóoraat waaw. waaw dafa am ñu bari ñoo xamante ne dañ may xamal ni dóor dóoraat ba fa seen coach bi euh, Camara jugee ba léegi mbër yi tegatuñ ko fi ñu ko war a teg entraînement bi war ci ñoom defatuñ ko kam jëmmi kamara moo taxoon ngeen di entraîner wala dafa da ngeen doon entraîner ngir bëgg carrière. non man moom man man laa man sama bopp laa xam man maay entraîner ma gis Camara man kaa gis kamara boo ma xoolee xam ne maay entraîner. est-ce que may dégg waaw boo ma xoolee xam ne maay mais tey Camara lu mu si manoon ak coono bu mu si doon def yaa may dégg pour man non dootuñ dootuñ gaaw amaat ko fi def ko Camara da ngay toog deux jours bu la gisul école da lay woo foo nekk da lay takk taxawal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal benn fan boo ko ratee école moo yëg téléphone am xew ñëwal da nga war a da nga war bëri ñii da nga war a bëri ñii ñëwal su ko defee suba boo nar a ñëw boo nar a a ñëw sax daa ngi ne Camara dina ma woo. coach la boo xamante ne en temps da lay motiver. mooy loolu kooku kooku kenn la billaahi wallaahi taalaa te yow daan nga seetaan si entraînement da lay rey ba nga dee. li ma gënoon neex ci moom lu mu ne mbër defal boo fa nekkee di hésité mu defal ko bopp mu defal ko boppam te bu ngeen àndee yow yaay bàyyi moom du bàyyi kooku moo fi man fuuf kenn du moom moo tax namu nañ ko trop te jooy nañ ko baa ngay xam lu la nit di jëriñ il faut mu sëriñ la mais bu la jegee doo ko xam de te doo ko jox cëram instant bi ñu ngi koy doo ko xam waaw ñëpp na mën nañ ko. ñu koy nuyu bu baax a baax au passage osmaan Ousmane nga xam ne moo nekkoon coach su écurie Dóor Dóoraat ma nga fële ca bitim réew xëy na wolof li wolof di wax rek picc nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf moom mënul bàyyi làmb xam naa ne fépp fu ti nekk rek. ma nga yër làmb daawuti doole na ko si jàmbaar dawul daawuti doole mu ngi ñëw waaw nañ ko xaar rek ale boo gis am na retour gëm naa ne bu retour bi ñëwee dina fekk ñi nii fay ko quoi. Mhm. Black fi mu toll nii ñu bari ci làmb dañuy jooy ay promoteur naan làmb dafa manqué promoteur ñii ne noonoo mbëri ñooy aj seen kase fu ñu toll wala xale yi ñoo buggatul bëre da ngay dem seeti Black mu ne la jox ma diw nga dem di ko indil diw mu laajaat diw nga dem di ko indil diw mu indi diw nu mu demee noonu ci làmb ak promoteur yeeg yu mel noonu. waaw yéeme na trop côté boobu moom yéeme na trop parce promoteur yi am na ñoo xamante ni xam na dañ si am seeni i booy. dañuy ñëw xool seet fu mu nooyee rek xam nga ñu jéem ko fa dugal. traceel ko yoon làmb ji ku mu am ndey la ku mu amul ndey boo gisee suñu carrière lu mu xaw a yàgg nii sax loolu la rek mais tamit xam nga bu yoon jeexul moom wolof Njaay moo ko wax waaxul du mos a jeex waaw te yoon bi moo ko jeexal de kon nañ jàpp rek manqué na promoteur manqué wul promoteur parce que ñu si doon nekk di doon tëgg ñëpp ñu bëri nekkatuñ si. ñooy tamit xaw nañ def xaw nañ euh, fay làmb si benn côté quoi comme ñu si mel ni Père Gasson gisatoo leen te ñoo leen doon neexal làmb lig na ko laa demeetul noonu xam nga tey ñu ngi ko jàpp en passant ñu ngi koy nuyu di ñaanal yàlla génne ko parce que moom nekk na koo xamante ni day suqali làmb quoi yee. est-ce que Black pare nga pour pour tëgg sa bopp parce que tey nga xool ni Black euh, war naa mën a bëre am na nattangoo am na adversaire nga dem xool ñoo xamante ni say encadrement la nga man damaa bëgg a bëreeg diw. mbër jotul nga yaakaar ni mu tëggal boppam mu dem mu dem bañ a basé wu ci promoteur mu génnee ay moyens boppam dem gis adversaire am ngeen daje yéen ñaar nga ne ko dama bëgg ñu tëgg suñu combat nga def cinquante ma def cinquante ñu tëgg ko arène nationale bu ñu paree ku ci nekk li nga am nga jël ko dem ñi loolu day defar làmb loolu yëpp day defar làmb mais loolu mën na nekk xalaat naa loolu kay bañ a man la lépp luy jëble euh, jëmale kanam làmb man balaa maa ngi koy xalaat saa su ne bàyyi ji dama bëgg làmb man man avant tout dama bëgg làmb su ma loolu làmb seeti naa leneen parce que am naa lu dàq làmb mais nit sa deret moo lay tooñ yaa may dégg man làmb fay lu ma est-ce yaa may dégg lu may am par journée xoolu sax làmb yaa may dégg mais tey nit su ma ne damay bàyyi sax sama deret daf may tooñ mënu ko bàyyi kon ñu ma bëgg ñëpp xama samay xarit samay mbokk dama bëgg ñu jàppale ma quoi xam nga ñu jàppale ma si làmb ku si mel ni baabu sama mag borom king of nice maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu may gën ma jàppale quoi ak magay gay xam nga borom mondial ni xam nga magay daal maa ngi koy sant moom bu baax di sant Lamine Gueye borom saal bi bëgg ñu jàppale ma daal te xam ne ñoom lu ñuy uti feneen am nañ ko fii waaw te gënuñ ma ñeme bàyyi ji la maa dugg fu ne si làmb bëree ji wallaahi ansi mi fu ne laa dugg si làmb bëree ji mais dafa mel ni léegi gisatuñ la ci wàcc làmb simple yi ngay wàcc de. maa ngi wàcc mais dama gëj a wàcc quoi parce que maa la doon wax sànq si tàmbali maa bi dama amoon blessure quoi maa ngi wàcc. waaw wàcc man làmb simple mënu ma ko bàyyi da ngay sama ginnaaw quoi. kon jàpp yi commencé waatoon dinañ gis balaak mu wàcc ci làmb simple yi di laalee gaay waaw maa ngi liggéey te loolu tax may liggéey instant bi mënu ma toog di xaar làmb rek su ma toogee di xaar combat rek kon bàyyi ma dem ma continuer sama liggéey ma bàyyi làmb ji tamit wala waaw su ma bëriwul Dakar maay bëree si àll bi ñi xam ne lu may wax waaw moo toog te du ma bëree ci moom. kan mooy sa idole ci làmb. Modou Lo. Modou. waaw lan moo la gën a neex ci moom. Euh, jàmbaar lu luñ ne diw mënul ko rek moom boo ko waxee ne ko mënoo lii rek tooñ nga ko même bu ko mënul sax day bañ man loolu neex na ma si moom trop parce que dafa nekk xale bu ndaw di ko topp comprendre nga di fréquenter ak moom di contact ak moom su xam nga di contact gars yi di nuyu ñoom Serigne Ndiaye ak ñoom su ma defee nii sax ñu ne ma non nii baaxul xam nga mooy loolu daal lépp lu ma mën si bëree buñ demee ba tax ba naan balaak mën a bëree wala mënul bëree wallaay ansimi gannaaw yàlla ak yonent bi moom la parce que dama ko topp di ko siifur di gis lu muy def ma koy jéem a def lu ma mënul ma gis ko ma koy def far foofu feeg mënu ma ko su ma tëddee si laal du ma nelaw dama ko roy bu baax a baax si xeetu bëree quoi. Euh, ban combat moo la gën a neex ci combat mi. bu ma gën a neex si combat am yëpp yëpp yëpp yëpp yi bokk nekkoon na combat bu ma neex sax. ma neex. lu taxoon mu neex. parce que dafa gaañoon gaañu gaañu bu métti sax. man bu ma teg sama bët man. préparation combat bi yëpp Modou buy bëree tànk bi baaxul buy bëree kawaas day sol di bëree parce que baaraam bi dafa xaroon xar bu métti sax waaw gaañu gaañu bu metti sax loolu ku nekkul jàmbaar keneen ku ko yoroon doo bëree ji de. gisoon ci combat bi mu mu def ci benn mbuus. ñu métti woon na bàyyi jili mm. ñu koy doon jege instant boobu ñoo la mënoon a mën a wax méttaay gi. dafa métti woon dafa métti trop sax dagg-dagg bu métti yépp a xotteekoon nekk jàmbaar moo tax mu bëree ji ko ba pare di di ak métti gi muy contact ak moom muy saf muy muñ xam nga ñëw jàpp isaapu yi daan ko jël bu jël bu rëy daal man daal suur boobu laa kontaan si moom kontaan boo xamante ni non gëmootuma ne man mën na ma defal loo xamante ni dama neex waa mm. mm-hmm. combat moo la gën a métti ci combat mi. combat bu ma gën a métti si combat mi Modou Lo Balla bu njëkk bi. daan ko daanoon 2010. 2010 métti woon na ma trop trop trop trop trop sur boobu maa ngi si biir géew bi maa ngi si kaw stade bi bañ daanee Mawlo dama tëb wàcc comprendre nga. léegi may daw bay dem si biir géew bi pour dem fekki Mawlo si biir géew dem ba jub géew bi taxaw mel dañ maa daaj ay pono ma taxaw sama ronga ñi di wadd mu am lu ma métti sur boobu loolu métti na ma trop loolu jooy naa ko ay semaine wallaay ensimé. boobu daan ko aller retour. waaw aller retour bi sax garaawul retour bi moom xam na. méttiwul mais bëre moom boobu mu daf ma quoi. est mu nekkoon première défaite Modou Lo moo taxoon mu metti ci yéen xamoo leen woon défaite. xamuñu ko woon xamuñu ko woon que tamit lu ñu tàmbaloon moom mooy lu ma la moom lu ñu tàmbaloon bëree daan ñibbi boo ñëwee di jël avance sax boo naan bu buñ naan diw moo la man sax moom bu ko fa fekkee sax yow mu naan diw moo la man da lay sifaay pare na la eh demal nga bëre ji boo mënul daan diw demal nga noppalu yokku la fit yokku la jom loolu jàmbaar rek moo ko mën xam nga ne kooku boo nekkee tàppee sax boo ko jegee da ngay barke Serigne Touba. balaa pour nga doon champion. lan moo koy maye. pour nga doon champion. waaw il faut nga nangoo liggéey bu baax di lekk tamit bu baax xam nga di teel a tëdd di moytu waaw champion il faut ngay tëju di lalu di lalu quoi il faut ngay tëju di lalu. du fuñ fuñ fuñ dëgg la rek na la fuñ fuñ fuñ tourné rek gis la quoi loolu champion moom waxuma na di nga ko nekk mais du yomb quoi. Hmm. Hmm. loolu bokk na ci liy def mbër sàmm. di moytu tamit di moytu di moytu surtout xale yu jigéen di moytu bu baaxa a baax a baax a lan moo mën a yàqal mbër. mbër lu ko mën a yàqal sobe ak bañ a hmm. waaw sobe moom baaxul si ku sax mbër. waaw waxuma laa mbër nag mbër bu xam ne da ngay tey mënoo ñaari fan yoo xam ne ah ku mel ni maas indi lu la butéel na la sangul hmm. léegi nga bëgg a nekk si la neex tamit kon du sotti de hmm. waaw. nga gisee wasaare làmb. waaw wasaare làmb moom sawaay waaw mu ngi wasaare moom mu ngi wasaare mu ngi def lu ko neex na filaale sànneeku kay mooy bomb de waaw man moom dama doon toog di ko seetaan surtout su ma tëddee guddi nii xam nga ma nekk site site boo xam ne dafa ma neex daal may tëdd guddi sama téléphone laay ne di ko seetaan rek di ko bëggee daal di bëggee Baye Jili tamit Baye Fall bu mag bi. jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen balaak laa dalaloon mu sampion boo xamante ne mu ngi nekk écurie Dóor Dóoraat tey ma ñëw ci salle de musculation bi seetaan ko mu waxtaan wax lépp loo xamante ni dafay yokk làmb wolof daf ne mbaam gàtt na loolu waaye ci jur gi la bokk du mbër moo xamante ni war naa mën a bëri ay 3 combats 4 combats mbër grand combat la ndax bu jugee mbooloo dañuy topp ci ginnaawam. xëy na nag blessure yi mu wax xëy na moo tax gisatuñ ko ci làmb moo waral wasaare làmb dox déplacé wu ñëw fii seet si ko waxtaan ak moom loolu yëpp bokk na ci lu yàq yokku làmb fi mu toll nii Euh, feebar bi dafa dugg si ñu arrêté activité yu bëri ñu ne président dalal na ñu bari dalal na musiciens yi dalal na rappeurs yi dalal na mais gisuñu axlu làmb mu dalal ci kenn en tant que mbër ban xalaat nga ci am loolu moom xam nga fa laay tàmbalee neexul ma de <laughs> mbaam gàtt na lool mee si jur gi la bokk na ñu dalal tamit xam nga nu mu dafa yeneen gars yi mu def ko ñun parce que si dëkk bi lañ bokk te gëm naa lu ñuy def si dëkk bi mbindeef du ko fi gaaw a def de waaw dañuy dugal lu bëri sax ba pare dañuy dindi stress yu bëri tamit xam nga dimanche jot rek nga toog xam naa ne moom sax da koy def toog dimanche rek war a jàkkaarloo téléem rek écran plat bu baax waaw di seetaan combat yi tamit loolu day neex quoi. kon nañu si nañu geesu daal président man Blanc Ndamal Saloum maa ngi lay wax bu ñu fàttee mbaam gàtt na lool mee si jur gi la bokk. geesuñu bu baax a baax. ma lay jaajëfal bu baax a baax. bu baax a baax waaw tamit nga may ñu sant quoi bu dee na mooy loolu. il faut tamit ñu sant xam nga. waaye xam nga rek làmb yombul baa ji lii. wala marte bi waaw ah, wala marte bi rek ma dóor gaay <laughs> ragal moo toj bopp kenn waaye incha di sant tamit gaay yu may jàppale bu baax. di sant kii mu ngi doog a ñëw xam naa dafa tardé sama rakk la quoi waaw Essar Gaye maa ngi koy sant bu baax a baax. di sant sama xarit. Mass Gambien kii man moom ñooy ànd fu nekk daf may jàppale lu mu am. jox ma du xool ndax man sama poos xaalis sang si du xool dara wallaay enzime dañuy ànd mënoo mbër génne na ma am te bu ko neexoo mu ne kii yor la wéccet kii faale ma ko maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg si adunaam rek ko yàlla defal si barke yonent bi di sant Moussa Diarra di sant bébé Black xama di sant sama beneen turandoor Black de yéen a bokk koñ waaw maa ngi koy sant bu baax di sant benn xarit bu ne far kii Espagne Birahim Birahim sa doom day la Biraay mbër la woon waaw léegi dafa sàqi dafa sàqi <laughs> borom Espagne maa ngi koy sant bu baax a baax a baax dafa may taxawu biir ak biti di ma jàppale guddeeg bëccëg sama xarit la sama doomu nday la ñoroon doon ànd guddeeg bëccëg Biraay borom Espagne maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant bi sama benn xarit borom poos day poos ay ongul am sa wàdd maa ngi koy sant bu baax borom Kër Mbay Fall. di sant tamit euh, sama mag Babacar. jili naa la da nga war a indi xale bi quoi sin place xam nga yi defaral ko lu baax ma boole ko sama mag bu ji defaral ko weey yu baax xef yu baax bu man di la xusi yaa bu a xam ah ragaluñ loolu de bu ñëwee foofu rek king of nice gars yi koy defaral lu baax sama mag a nga fa Babacar maa ngi koy sant bu baax waaw di nuyu waa place bi yëpp tamit xam nga ñooy dañ siy jàpp dañuy am fukki dërëm sama ñëw nangu ko tap xam nga duñ xool ne kii magam moo ne fii lu xaalis bu ñu am ma ñëwee dama koy jël ku si mel ne Amina 13 xam nga Euh, mama sama doom maa ami ñoom tëdd maa sama doom di sant kii aayoo sama rak di sant waa place bépp sama tarkindaa bu jigéen bi sëy naa xam nga maa ngi koy sant borom Colobane si gaynde gi la dëkkee xam moom gaynde gu mag la moo tax daa dem ba si buntu gaynde gi bu dëkk fa di sant Zeyna Fallou borom Géejawaay doomu nday Ndeer doomu nday Awa Ñang maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant waa place yëpp ñaari Fallou yëpp Fallou bu xees maa ngi koy sant Fallou Waly sant euh, gars yu may jàppale yëpp daal si mel ni Abdou Karim Messi ñoom buusa Ibu sama xarit Këccëb waaw sama xarit quoi kër Mbay Fall maa ngi koy sant bu baax di sant mag bu jigéen dumbee di sant benn paa boo xam ne daf may jàppale Jàllo day yëgati lépp di ma jox pour may sangu di defar sama te du ma jox dërëm Diallo maa ngi koy sant bu baax a baax baax di sant paa faati xam nga di sant euh, nu mu tuddati Pa euh, kii waay nu mu tuddati euh, sëñ Ousmane Ndiaye bu sant Elou njaay maa ngi koy sant bu baax. xam nga rek ku lim da nga matal mais da ngay juum di sant képp koo xam ne yow yaa ngi jàppale Black di sant sama rak alaaj Tafa Bégé boo yu may téyel galaaj ñu si mel ni moor gay xam nga maa ngi leen sant bu baax moor gay bojo bojo maa ngi koy sant di sant Samba Badiane di sant sama rek bëggee xam nga Serigne Thiam ñoom alaaj Tafa Magay xam nga di sant fami baabu Thiali gépp ku ma si limu rek damaa fàtte quoi xel moo matul di sant Ablaye gay borom Brésil euh, borom Afrique Sud di sant Yaaba Gaye borom Brésil xam nga di sant di sant àdduna may ma rek bàyyi jili waaw gars yi di si jàpp quoi bàyyi jili may ma rek xiir gi foog mu dal leen xam nga di sant tamit euh, Pa Babou gay magu kiila la daf may jàpp di sant korsu mangaan mii dafa may jàppale moom it di sant Adama moo seere saal bi di sant sama mbokk yëpp waa sancu Aliou Ndiaye waa Ngeen Moussa Gaye waa kër Serigne Xoja maa leen sant waa Saalum daal tund Saalum bi maa leen sant di sant borom King of Nice Babacar nee naa mu ngi nekk Sacré Cœur côté Yankis ku fa ñëw daal gars yi la defaral ba mu baax gars yaa ngi fa Baye Fall yaa ngi fa yaay Fall yaa di sant Malick borom pose ongle yi moom it Habib sama sëriñ di sant waa Daaru Wiraan xam nga di sant waa Arafat alaaji Abib Touré maa ngi koy sant bu baax parce que dama fa dem sama combat mu ñaanal bu baax a baax di sant sëñ Abdou Karim Mbacke di sant sëñ Amsa di sant ñëpp daal dafa bëri ñoo xam dañ may jàppale di sant ku si mel ni Matar Subatel Baye Ndiaye maa ngi koy sant bu baax a baax di sant Abdou Karim Messi bu baax a baax a baax di sant Baye Fall sama xarit maa ngi koy sant bu baax baay Fall boo bëggee oto bu baax rek ñëwal mu jox la maa ngi koy sant bu baax moto sax boo bëggee boo ñëw mu jox la ko maa ngi koy sant bu baax a baax a baax xam naa naa la booleeg moom ñoo far di sant gaay yëpp daal waa place bi yëpp képp kuy jàppale balaak balaak mu lay sant képp ku ma limul lay xamal ne damaa juum xel moo dul mat quoi nit amul benn nit bu mat waaye képp kuy sonn si man rek jàppale maa lay sant di la bégee jaajëf di sant sama jigéen di sant waa kër Mbaye Fall gi yëpp maa lay sant waaw waa kër Mbaye Fall gi yëpp surtout waa parcelle waa xaar yàlla Grand Yoff Arafat waa zone 7B yëpp maa leen sant bu baax a baax a baax di sant waa parcelle 1 ba 26. di sant sama waa écrit waa Dóor Dóoraat di sant Moussa Balla Gaye parce que moom sama gayaan la sama xarit la sama doom. <laughs> yaa <laughs> ko wax de. yaa ko wax de <laughs> ah wax waaw waaye sant Moussa bàyyi ma njoon kon comme yaa wax daal. garaawul maa ngi sant Garga Mbossé di sant waa équipe bi yëpp ñoom Goro Sock Ada Boy Baol gaa yëpp daal bégee jaajëf. jërë ngeen jëf mbokk yi euh, loolu lañ leen dégteloon man dama fee nekk ngir mbër yi nga xamante ni ay champion lañ te bu ëllëgee làmb da leen di teg loxo ñi nga xamante ni jàpp nañ ne bu soobee yàlla incha allahu rabbi ndombal tànk làmb benn musta suuf ndax roi des arènes boo gis rek mbër ko tekk takkal ko mbër ñu commencé ko ci. Euh, tubaabu joor suñu ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko taxaare ko àjjana suñu papa Manga waaw mu ni def Tyson euh, du comme ku ci mel ni yax yu jóob Yaxya ni bombar Bombardier ba ci Balla Gaye 2 ba ci tey mu ngi ci jóge ci Eumeu seen nekk ci loxo yi ki nga xamante ni mooy Modou Lo moo lay wan ni làmb ndombal tànkam musul laal suuf saa yu ko mbër tekkee rek mbër da koy takk moo waral ñu dem jël si mbër yi nga xamante ni tey ñu ci bari ci làmb ñu ngi leen di gis t xamuñu kii mooy kan. da ngay dajeeg ñoom xam ne kii mbër la mais xamoo fu mu nekk xaar ma sa kër dinaa la jël si incha allahu rabbi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax daam loo bëggoon doole. waaw mën di sant El Hadj Tafa Bébé Garga maa ngi koy sant bu baax dama ko xawoon a plané waaw daf may jàppale magay tamit maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waaw di sant uh, sama famille bi yëpp ñëpp a may jàppale Sirif Gaye maa ngi koy sant bu baax a baax Mor Abdou Sid maa ngi koy sant moom it di sant ñëpp sama rakk bégee Serigne Thiam sama mag bu jigéen këram laay ngemboo te nekk mbër yombul comprendre nga damay ñëw taxal foofu yëpp fu ma jaar mu tax moo sangoo fu ma jaar day tax damay sax ru sugg di ko xool day fomp ba sonn jigéen bu man góoloon du mbéggay maa ngi koy sant bu baax di sant sama mag eh, rakk bu jigéen jéegay maa ngi koy sant di sant jëkkëram seex di sant sama rakk jama dumbe di sant eh, sama yaay bu baax ak sama papa di sant ñëpp daal ñëpp maa leen sant sama famille bi yëpp ku ma liimul la xamal damaa juum Cheikh maa lay sant bu baax Cheikh Dramé daf may jàppale moom it sonal naa ko trop waaw fu sama bët xonqee rek munoo balaak non non. jërëjëf jërëjëf sant na ñëpp gërëm na ñëpp ku mu tuddul rek nga xam ni maanaam euh, temps bi moo ko matewul ak euh, bëgg naa tudd ñëpp ndax mbër nag bu sañoon képp ku koy jàppale rek mu tudd la ñu leen di jaajëfal ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu jërëjëf.